Ousmane Sonko. Euh, mhm. de l'ombre au président de la République. Euh, euh, cette question-là ça revient chaque fois leur objectif c'est tout simplement de mettre en mal ou bien de leurrer. de ruser les Sénégalais. yow gisoon ni ñaari président cest dire que c'est c'est-à-dire que ñoom ils ont hérité ce qu'on appelle du pouvoir de machiavélisme ñoom le politique ça tourne autour de la ruse Machiavel un pouvoir doit être fort comme un lion et rusé comme un renard hmm. s'il n'y a pas de force c'est-à-dire qu'il ne dispose plus de force pour pouvoir gouverner. Kon dama moo incarné force lion. parce que non non non je ne parle pas de je te parle du régime sortant <laughs> attention je précise du régime sortant ñoom loolu mooy seen objectif amatuñu force mais li leen des mooy ruse. ruse mooy jeter euh, du poudre aux yeux des Sénégalais alors que loolu ñun nous sommes conscients de leurs intentions les Sénégalais dañoo yeewu bu yàgg li tax ñu yeewu mooy su Ousmane Sonko a fait ce qu'on appelle une redéfinition de la politique mooy conscientiser Sénégalais yi conscientiser ndaw ñi. moo tax saaga yi dañ la gën bëri de. ah saaga yi li naan borom caq du xeex ak borom baatu nen. kan mooy am pouvoir di continuer di saaga. alors que saaga bi jógewul ci ñun saaga bi fan lay jógee mooy ci ñi nga xamante ni. mais ñëppay saaga. non non. alors tout ñi ñi saaga mooy ñi nga xamante ni nii ils ont perdu le pouvoir maintenant nag le sien euh, aboie la caravane passe. ñiy jaxase Ousmane Sonko ak euh, le président Diomaye Faye c'est-à-dire c'est parce que ñoom ils n'ont plus en quelque sorte une légitimité de pouvoir parler. mën na bañ a nekk jaxase. Hmm? dañu gis ni que rek peut-être ñaari président la ñu am. <laughs> c'est-à-dire que xale yi ñu ngi koy ñu ngi ko koy sax di tooñe naan président Ousmane Sonko mooy fal ministre mooy fal euh, du moins mooy fooy moom mooy fal euh, président mooy fal maire moom mooy fal également euh, député donc c'est pour dire que. kan mooy fal député maire nga ne. Hmm? non dañ dañ ko koy tooñee ah, waxin la quoi dañ ko koy tooñe dañ koy tonné c'est-à-dire que waaw donc euh, mais pour vous rassurer mm. donc euh, le président Ousmane Sonko le président li expression bi lay di déranger mooy le président Ousmane Sonko parce qu'il est le président du parti donc nous on a l'habitude de pouvoir le dire euh, mooy que moom ak le président Diomaye Faye ku si nekk ak sa tâche yi nga xam te ni moom ngay joué donc il faut parvenir à l'idée